maa taaqaba almalawaan wa karral jadidaan téléspectateurs yi seetaan 7TV télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale seen émission guddi àjjuma ñëwaat tey ci beneen invité ci yeneen invité ñu am yaakaar incha allahu rabbi ne li ñu leen indil dana leen neex dana leen jëriñ ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal nag bu baax kilifa yi ngànk réew mi ci wàllu diine ŋànk ci wàllu aada Sénégal yàlla na fi jàmm sax mille vingt 2024 euh, bii ñu dugg itam yàlla na ci yàlla def barke yàlla na ci yàlla def xéewal def ci naataange bu baax a baax a baax a baax waaye itam télévision 7 TV jëm ca kaw jëm ca kanam Maïmouna Ndour fay directrice général moom itam yàlla dooleel ko ndax bu ko yàlla dooleel rek doole ji faw mu laaw ba laal ju kon yàlla na ko yàlla dooleel dooleel waa production waa programme waa régie caméraman yi journaliste yi ak yëpp yàlla fi jàmm sax ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni tey ñu ngi dalal Cheikh Ahmadou Mbacké Sakho di borom xam-xam boo xam ni kenn du ko présenté ti Sénégal kenn du ko présenté ci àdduna ndax xam-xamam bu sell moom lañ dalal ak ki nga xamante ni mooy Abbé Jacques Seck moom mi ngi ci yoon wi incha allahu rabbi bu amul benn ngant incha allahu bi ñu ngi démarré mu fekk ñu ci kon euh, Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Ahmad Mbacké ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaara di la ndokkeel di la ndokkeel itam ci du ma at mu bees mi sax ndax ay jurit lañ waaye ci 2024 bi salaamaaleykum. waaw kay macha allah euh, oustaz maa ngi lay nuyu euh, di nuyu ñi nga xam ne ñëpp dañuy topp émission bi. di rafetlu bu baax invitation bi te di ci kontaan bu baax euh, di leen sant aussi di sant waa télé bi ak seeni technicien di sant ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy topp émission bi di sant ñi ma àndal di sant ñëpp tey rafetlu lépp macha allah jërëjëf. alhamdulilah yal na lépp rafet yal nañu yàlla may nu ñu ko jëriñoo waaye tey li nga xam ni moom lañu indi comme thème mooy jullit ak chrétien li leen boole ak li leen taxale kon ñu jox Cheikh euh, Mbacke Cheikh Ahmad Mbacke Sakho moom itam mu tontuñ ci loolu bismillah Cheikh. waaw koy macha allah euh, oustaz ñoo ngi lay nuyu bu baax tey rafetlu bu baax question bi euh, maanaam. Mm-hmm. bisimilah. Mm-hmm. waaw kay oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax tey lu bu baax lépp rek. macha allah sant yàlla. Mm-hmm. Euh, laaj bi nga laaj mooy maam li ñuy wax jullit yi ak chrétien yi. ana lan moo leen boole. ak ana lan moo leen tàqale. yaakaar naa ne koo xam ne xam na maanaam suñu borom li nga xam ne moom la jàngaleel boppam. nga xam ne li ñu boole. mooy ay yonent yoo xam ne yàllaa leen yónni mm-hmm. yonent yooyu nag comme ni ma koy waxee jamono bu ne duñ ay wujju du ñoo xam ne ay concurrent lañ mm-hmm. ñoo xam ne ñëpp suñ borom da ne a yónni ñuy doxal benn mission ci diineem mm-hmm. ñooñu nag la nga xam ne moom moo leen fi indi woon ñi ko doon def di woo nit ñi ci gëm yàlla ak di ko jaamu ak di ko kennal loolu nekkul loo xam ne dafay jur jafe-jafe ci diggante nit ñi ndax yàlla ci boppam dafa tere ñi gëm ñuy def ak tàqale diggante ndaw ndawul yàlla yi mm-hmm. wax na ne laa nu farriqu bayna ahadin min rusulihi mm-hmm. laa nu farriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun xam mm-hmm. ne ñun waruñoo tàqale diggante kenn ci ndaw yi ndax ñoom ñëpp ay ñoo xam ne dañoo jébbal lépp seen borom lañ kon dëgg-dëgg su fekkoon ne dañoo dellu ca li nga xam ne moom la yàlla wax li nga xam ne moom la yàlla jàngaleel boppam konoon lu ñuy tàqale du am mm-hmm. fekkoon ne dañoo yem ci li yàlla jàngaleel boppam rek lenn lu ñuy tàqale du am xëy na kay tàqale maanaam li ñuy wax tàqaloo bi ca la muy juddoo mm-hmm. xëy na day juddoo ci leneen loo xam ne ginnaaw gi mm-hmm. lañ ko dugal ci mbir yi loolu nag moom mooy dem ba jur ay jafe-jafe dem ba jur ay wuute wuute yooyu nag mooy jur tàqalikoo bi nga xam ne moom la ñuy wax mm-hmm. ndax wuute dëgg-dëgg mooy luy jur tàqalikoo mm-hmm. waaye su fekkoon ne rek dañuy yem ci li yàlla jàngaleel boppam mm-hmm. konoon dëgg-dëgg wuute yooyu du mën a am parce que booloo bi day mën a nekk jërëjëf Cheikh Ahmed Mbacké Sakho euh, kon ñu dalal euh, abbé Jacques Seck euh, abbé kay fa alhamdulillah Ah, <laughs> ah, kon xayra ala xayri incha allah. Euh, jërëjëf ñu dalal abbé euh, Jacques Seck abbé ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. sëy naa leen ci kontaante bu rëy. Mhm. ndax lu mel nii loo xam ne def ñuy boole ci diine yi. Mhm. ñu gën a xamante gën a duggante gën a def li yàlla bugga mhm. saa yu ma amee jot ak dem naa ca. jërëjëf noonu nga ñu ko waxee tey nag ñu indi thème boo xamante ni. lu sénégalais yi bàyyi xel la yàkkamti woon ko. muy chrétien et musulman point comme et différence maanaam jul jullit ak chrétien li ñu bokk ak li leen taxale ñu euh, dalal sa xarit moom xam na après dana wax euh, alaaka yi nga xamante ni doxoon na sa diggante ak moom ci wàllu cofeel lay wax parce que xamal nañu ne ku la daan seetaan la ku la daan bàyyi xel la moo ko way juram léegi euh, ñu laaj la muy Cheikh Ahmad Mbacké Sakho Euh, li nga xamante ni tey moom moom la daanele kàddoom léegi muy ci lislaam yàlla daf leen tere ci ñu ut xaj ak seen ñu taxale ci yonent yi waaw bañ ci am benn benn wuute maanaam du bañ a gëm kii bàyyi kii di laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli abbé Jacques ci kàddu googu loo ciy wax euh, souvent lii daal ñi mooy li li nga dégg ah, ak li nga xam ne loolu la ñuy wax mbaa loolu la tax a jóg du noonu c'est-à-dire boo demee par exemple Joal mm-hmm. fekk fa la bi Jacques Seck ak Oustaz Ndour mm-hmm. imaam dama mm-hmm. demee Joal suma benn cousin ne may Jacques ma ah, ne am naa fii benn doom daal maak moom Mm-hmm. so uh, Sere ab mew mm-hmm. tudda Oussa Ndour mm-hmm. man nag balaa ma koy xam fekk na de temps en temps may wóor fii kalifa di ne nekka di waxtaan ak ñoom comme moom nag jënga na bu baax alquran al karim et lugatil arabia mu gën may ko nag mun wax wax wax la mun c'est que fu ñu dem ba ma introduire bu ustaas waxee rek man maa koy jëkka chantation <laughs> waaw ce qui fait dem a dem ba si at yooyu benn baas jaa ne ma waaw Lam Jacques ci sa tey loo bëgg ma ne ko biyee makk laa bëgg mu ma biyee makk laa bëgg xam ne kañ mu ne ko kan ka ko ko may ma ne ko suma dem Ousseynou Ndour. incha naa dem ma kame mënu ma fa dem. Mm-hmm. c'est pas grave. Mm-hmm. bu Oustaz demee ba laal xeer ba ma ne man dem naa. si loolu amoon ba ma demee ba mu demee ma day jël mu ne ko bul ma wax dara man te dem naa Makka. waaw mu gën a baaxee. <laughs> comme yëf si nga ci jëm ak salaam waaw. Hmm. te lu baax nga def war waaw. Hmm. wax bi jën lii moo tax ñun waa Sénégal ñu bari chance. Hmm. Senghor bi mu nekkee président munoon a jël kenn ku ab lu Diouf. <laughs> mu jël Abdou Diouf. parce que xam na ko xam na li ko yàlla may moom it ab doo xam ne itam li li li yàlla may Senghor ñooñu ñoo ngeen ñoo mun a téye réew mi. Mm-hmm. caaxaan yi eh, nit ñi discuter dañ ko dépassé. ku nekk ci ñoom xam na ne diine kii du caaxaan suba diine du caaxaan kon bu ñu kenn eh, boole. Mm-hmm. waaw ku ut daal eh, man bokkuñu sax. Mm-hmm. bu doon lii ma nekkoon du ma jox bi ma nekk oustaz de man nga laal xeer ba ñaari yoon parce que mënu ma dem ma dem ba mu deg si université nag ma jëm ko mu ma ne ko bu ñu bul kenn wax xam nga xam naa mhm. ci booba wetee nag c'est-à-dire euh, ma def ak oustaz def lu caaxaan parce que dama bari chance bi rapidement ma grande ki ma bokkal ndey ak baay a épousé le premier imam de l'époque Ababacar Ndour le palmarin mhm. Ababacar Ndour baayam moo woon fii bari yi islam ñibbi palmarin wax kenn nekkagul musulman tout palmarin mhm. kooku la indi diine ba fale doomam takk suma grande sœur épousé ko Tening Seck mu jox ko mhm. teen Aminata lii mooy tax ba jëm 1900 euh, at yooyu la suma papa ne doomam bu jigéen lay tëppac dana ko papa yaaw yaaw <laughs> mon père donc c'est musulman Euh, Abdourahmane Seck ma ne ko tey mu leer allahu ahad mhm. li ñuy discuter sew sewaan la waaye li am solo xam nañu yàlla du moromu kenn amul newle mhm. amul baay amul lay mhm. allahu ahad waaw loolu war nañ si waxin lay am benn ci wax lii wala ñaar yàlla mënut a an encore mooy ñett yàlla mun a def mënut a def lu woon ku mu yónnee jar nga yónnee wallaay jërëjëf at ku fi ñëw yi ne yàlla ko yónnee. Mhm. ku ko gis te mayoo ko cher da nga déggul. dëgg la ku nekk ak diineem. Mhm. waaye boo tasee ak ku am diine dëggantaan nga ne ah kii kii sa ci la bokkat. Mhm. jërëjëf am na solo. Euh, Cheikh euh, dégg nga fi mu waxee. Euh, wax na ni yàlla amul nawle. kenn du ko kenn du ko nawlawul kenn sax bay am mm-hmm. nawle mm-hmm. Euh, wax ni parfois problème mu déggin ak gëm-gëm lay doon mm-hmm. nga juñ yow itam nga wax ko sànq waaye bu ñu bu ñu ñëwee ci wàll yi nga xamante ni mooy mooy mooy mooy alaaqa yi euh, lan la lis le le christianisme defal l'islam ak fi may njëkk a waxee mooy xam nga man na fi may waxee mooy li yàlla di jàngale ci alxuraan tout le xam nga soo demee ci alxuraan maanaam def gi ñu def ñaari entité ñu ne chrétien ne musulman yàlla sax deful loolu te poolem bi yëpp foofu la njëkk a nekk ñun souvent loolu la ñuy fàttali dañuy wax ne diine continuité la mm-hmm. kenn ku ci ne mm-hmm. dañu jox sa pierre nga war ko teg ci édifice bi ci mm-hmm. bi ci jamono bi nga nekk dañ lay jox sa pierre nga war ko teg ci édifice bi su keneen ñëwee moom it teg pierre am mm-hmm. xam nga loolu su fekkoon ne ci lañ yem jafe-jafe du am suñu diggante mm-hmm. xam nga yàlla day wax ci alxuraan ne fi muy wax ne wala xadd wasal naa lahumul xawla laallahum yadakkaruun mu ne alladina aataynaahumul kitaaba min qablihi hum bihi yuminuun mu ne wa isa yutla alayhim ñoom dañu naan xaalu amanna bihi innahu lxaqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin day wax ne ñi nga xam ne dañoo gëmoon yonent ya jiitu wax ji su yekkee ci ñoom amaana danañu xelaat yàlla mu ne ñi nga xam ne téere ñoom dikkaloon na leen lu jiitu ñoom suñu ñëwee dañuy wax ne ah ah ñun kay ñu gëm nañ te ñoom suñu déggee wax ja dañ naan ah ñun kay lii gëm nañ ko ndax lii dëgg la gu bàyyeekoo ci suñu borom te ñun fekkee ñun ñu doon ay muslim mm-hmm. c'est problème foofu nekk man damay wax na def gi ñuy def ay entité mu mel ni léegi maanaam Moussa yonent yàlla Moussa dafa ñëwoon am benn kuréel gu mu créé mu mel ni yonent yàlla Isa dafa ñëw am kuréel gu mu créé mu mel ni yonent yàlla Muhammad dafa ñëw am créé am kuréel gu mu créé damay wax ne problème bi foofu la nekk mhm. su fekkoon ne ni yàlla waxee ne warul ci ñun ñuy tàqale seen diggante mhm. tàqalikoo boobu defuñu ko konoon problème du am mhm. te soo demee ci alxuraan maanaam ndax foo dem am na ay réalité mhm. yonent bi mu ñëwee di woote fekkoon na amoon na ay yahud am na ñoo xam ne dañ doon wax na ay nasaraan dañ mhm. mais yàlla soo demee ci alxuraan si soo demee ci surat 5 verset 82 mhm. yàlla day wax ne la tajidan naasi day wax ne loolu wax ma la tajidan naasi adawatan lilladina amanu lyahuda walladina ashraku mu ne wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina xaalu inna nasaara inna nasaara nga xam ne mu ne mu ne nit ñi danañu fekk ñi nga xam ne ñooy gën a tar ci ñu gëm ak nooneel te ñi nga xam ne dañuy wax ne ay yahud lañ ak ñi nga xam ne dañuy bokkaale mhm. waaye nag danañu gën a fekk nag ñi nga xam ne ñooy gën a jege ak cofeel ca ñoom mooy ñi nga xam ne dañuy wax ne ñun ay nasaraan lañ mhm. mu ne ndax lan zalika bi ann minhum xissiisiina wa ruhbaanan wa annahum la yastakbiruun mhm. ndax ñoom dañoo am ay labbe am ay prêtre yoo xam ne dañoo nekk ca ñoom te ñooñu duñu rëylu mhm. mu ne wa ida samihu maa unzila ila rasuli tara ayunahum tafiidu min addamai min alxaq mhm. yaquluuna rabbana amanna faktubna maa shahidin déggee dëgg gi li nga xam ne moom lañ wàccee mu jëm ci yonent bi da gis ne seen bët yi day fees dell. Mm-hmm. ak i rongoñ ci li nga xam ne moom lañ xàmmee dëgg gi mm-hmm. di wax nakat kat suñu boroom ñun gëm lañ te it ñun faktub naa maha shahidin binduñu boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy seede mm-hmm. kon nga gis ne yàlla moom ni muy waxee ci ñi nga xam ne dañuy wax ne te dama koy wax damay am benn aaya bu nekk ci suratu hadid mu nekk benn wax bu ma neex boo xam ne suñu boroom da koy wax ci ñi nga xam ne dañoo gëm Isa mooy bi muy wax naan wala xadd arsalna nuuxan wa ibrahim wa jaalna fi zurriyatihim an nubuata wal kitab mu ne fa minhum muhtadin wa kathiru minhum fasiqun mhm. mu ne summa xafaynaa ala athaarihim bi rusulina wa xafaynaa bi isa bni maryama wa aataynaahu l injila wa jaalna fi qulubi alladina tabahuuhu rafatan wa rahmatan mhm. ama suñ ci boppam moom moo xam le ñi nga xam ne dañoo topp isa moom moo def ci seen xol ak ñeewant ak yërmande kon ça veut dire yàlla am na loo xam ne lu mu leen reconnaître la loo xam ne lu mu waxal boppam la kon loo xam ne tamit yàlla moo ko wax ci ñoom ñi nga xam ne ñoo gën a jege ci am maanaam ci am cofeel ci ñun mooy ñi nga xam ne dañuy wax ne ñun ay nasaraan lañ kon dangay gis ne li mu wax léegi relation boobu mu wane ak imaam Ndour boobu ak Oustaz Ndour boobu mu wax mm-hmm. maanaam mu jaral ko sax ñu ne ko yow loo bëgg mu ne bien maakata laaju ko pour boppam da ngay gis ne moom diggante kon diggante la boo xam ne moom moo ngi koy defar mhm. te it mu ngi wane alaaxa bi nga xam ne moo dox su waxee ne sama grande sœur dañ koo may ku tudd nàngam kon mu ngi wane kon mu ngi wane maanaam li nga xam ne nit ñi ñoo ngi koy jàppee problème mhm. alors que au sein même de sa famille mhm. ñoom loolu dépasé nañ ko parce que man damay faral di wax ne problème yi souvent li koy jur rek mooy ñàkk tënku ak ñàkk a yem fi ñu yem ñu yemloo. Mhm. maanaam suñu tënku woon fi ñu war a tënku yem fi ñu war a yem problème du am ndax. Mhm. moom li mu gëm moom moo ko gëm. Mhm. moom loolu am na droit gëm ko am na droit dund ko. man li ma gëm man maa ko gëm am naa droit gëm ko am naa droit dund ko que soo demee ci alxuraan dafa am benn wax bu am solo bu yàlla wax yonent bi la ko wax dana ko. walaw shaa rabbuka la aamana man fi l ardi kulluhum jamian wallaahi tegal ko ci ne afa anta tukrihu nnaasa xatta yakunu muminin mhm. su sooban yàlla sa borom ñi ci suuf ñëpp dañuy gëm wala boog yaay forcer nit ñi ba ñu nekk ñu gëm mhm. parce que damay wax loolu souvent xam nga fii maanaam problème boobu la ñuy am kenn ku ci ne bàyyi leen fu loolu yàlla la muy wax mhm. nit ki su nekkee sax ab athée mais am na droit nekk athée yàlla moo wax ci alxuraan alxaqu min rabbikum fa man fa fal yumin wa man shaa fal yakfur mm-hmm. dëgg ci seen borom lay bàyyi ko ku mu soob mu gëm ku mu soob mu weddi mm-hmm. yàlla mooy wax tamit ba tey ci alxuraan laa ikraha fi diin diine amul forcé mm-hmm. maam nit ku ci ne am na possibilité gëm li mu war a gëm te dafa am benn aaya tamit ba tey bu ñëw ci alxuraan suratu maida aaya 48 mu nekk aaya bu am solo mm-hmm. wax wa anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi musaddiqan li ma bayna yadayhi min alkitaabi wa muhayminan alayhi mm-hmm. mu ne faxkum baynahum bi ma anzala allah wala tattabi ahwaahum amma jaaka min alxaq mais mm-hmm. li kullin jaalna minkum shiratan wa minhajan walaw shaa allahu la jaalakum ummatan waxidatan walakin li yabluwakum fi ma aataakum lum ca teg fastabiqul xayraat su fekkoon ne ci gëm leneen ñoom dañuy fexe nu ñuy njëkkalantee ci yiw yi nu ñuy njëkkalantee ci yu baax yi man ñun tamit ñuy njëkkalantee ñu xool naka lañuy ñuy njëkkalantee ci yiw yi xool nañuy njëkkalantee ci yu baax yi mm-hmm. mais konoon dëkk bi kay yiw ak baax rek a fii ne mm-hmm. su fekkoon ne kenn ku ci ne yàlla su nay lam teg sax ah, ah nga xam loolu loolu teg ah, yàlla mu ngi sa ilallaahi marjiukum jamian fa yunabbiukum bimaa kuntum fiihi taxtalifuun mm-hmm. te yéen ñëpp ci moom ngeen di dellu su boobaa moom dana leen xibaar ca la nga xam ne moom ngeen wutewul mm-hmm. kon kay maanaam mbir mi du fii ma damay wax ne diina leen moo ci am ñëwal fàttali la ngay wax nga joxe preuve yi bàyyi kenn ku ci na ak xelam ma mu dellu ci waat ci la ikra ah, fi diin ndax yàlla su waxee yonent bi na ko su sooboon yàlla sa borom ñëpp dañuy doon ñu gëm wala boog yaa leen ni yow kon moom ci boppam forcé wul lu mu ko fa zakkir innama anta muzakkirun lasta alayhim bi musaytir mm-hmm. kon moom ñëw ñëwul benn dafa war a forcé nit ñi mm-hmm. dalee leen war a maanaam teg benn doole ji waaye da leen ko war a wan pour ñu gëm déedéet mm-hmm. li ñu ko sant mooy fàttali te su doon fàttali lu mu daan fàttali yàlla moo ne nahnu a'lam bi ma yaquluun wa ma anta alayhim bi jabbaarin lan la ko wax fa zakkir bil qur'aani man yaqaafu wa'iidi fa la yem yow ñëwoon rek wax li nga war a wax kenn ku ci ne nag bàyyi ko conscience am bàyyi ko conscience am. dëgg la fa zakir bil qur'aani man yaxaafu wa'iidi hmm. macha allah euh, Abbé boo déggee li nga xamante ni euh, sëñ euh, Cheikh leeral na ko ci ni nga xamante ni moom la. chrétien bi wala musulman bi wala keneen ki wala comporté woo ci gëm-gëmam yem fakka yàlla yem loo te bañ a lëñbët maanaam bañ ba ba bañ a xóot gas loo xamante ni mën na indi ay lënt-lënt. Mhm. parce que euh, ni ma ko gisee mooy waa na ko bu nekkoon yàlla ñëpp a nekk yaahud ya ñoo jiitu. Mhm. waaye defu ko. si baaxaayam pourtant. chrétien yi ñëw mun a jël yàlla ja chrétien yi ma ko foofa. waaye defu ko mu indi Muhammad. te avant ñooñu fale Ausinde. Bouddha Bouddha du caaxaan. du musulman ma gis ci moom li ma jàng ci moom. te moo jiitu Isa fuuf. ba yàlla soppee nit du tey waay. kon su mu jee ñëw. naa def lim ma wax te yem ci. bañ a bugg a forcé ñëpp nag ñi ma jiitu ak ñi ma topp li ma li ma may. Mhm. parce que am nañ ki ñu ko mayoon avant ñun. après ñu am na ñu mu ko am na moo leen ci may. Mhm. bu ñu àndeef sagu daal jàmm nekk na ba daal. Mhm. yaakaar naa ne li ma doon daal yoonu aljana la waaye waaye nag na saxuma na saxuma ba fàtte ne am na ñi ñu jiitu ak ñi ñëw suñu gannaaw te yàllaa leen woo. waaw. Moïse moo ñu jiitu. Mhm. Mohamed moo moo moo moo topp ci ginnaawam. Mhm. yàlla moo leen ñoom ñaar ñëpp. Mhm. kon daal dialogue bi ñuy def fii Sénégal. bi tax ma mun a jiitu suma xaalis yow oustaz Ndour mu ne demal Makka. bu ñu ko kenn yàqal. dëgg la. Mm-hmm. kooku itam noonu laa ko defal ñoo dëkk ci benn kër gi. maamam. ak sama papa ñoo bokkan yàgg bàyyi ci kër gi. Mhm. ma seet dama ma ne ma dégg ma ne oustaz mu ne oustaz dem na xamu ban dëkk ma ne ko ah ah du foofu ma fexe ba mu ñëw maa mhm. ma tuni daal foo xam ne foofu dina am alquran mu jàng mu gën a xootee. Mhm. ba mu ñibbisee nag ak soolu. ma def ko ci benn école boo xam ne bu weer bi dañu jox ko enveloppe am. Mhm. alors ñoom it bàyyi ma ko wax la musique oui ji na nag ma ne ko non dañu wax te waxuñu lu doy diine yi yàlla leen moom jox leen nit ñi bii rek la pour tout le ah, ah, ah. kii rek la ah ban aadama ba tey yéen lay def lu ko neex bu nekkoon kañ mu yew ci yaaw di ndax ñoo ñoo ñu jiitu yem ca. Mm-hmm. waa mu yem ci Isa déedéet mbaa mu yem ci Muhammad déedéet ñoom yëpp yàllaa leen indi waa bu ko neexee nag bu indi keneen. Mm-hmm. c'est-à-dire ñun ñi xam loolu amuñu ci woon su ma diine daal bu ma kon buntu xatal ay xam naa nag ne du man rek lañu mën diine bu baax. Mm-hmm. catholique bi moo jiitu. waaye bu yaxee ne waxee ne moo xamal bokk ci ma def ah ah évangile ah, ah. waxu ko de. Mhm. missionnaire yi ñoo ñëwoon di ñu jaxase. Mhm. Ah. man ki ma jàngal eh, eh, diine catholique. Mhm. man maa toog ba ñor ma ne ko tubaab bi doon français kii li mu wax bu ko doon ma ne ko ah jàngal lu diine. <laughs> danga may jàngal xeex te xeexuma. parce que dañ ci xas musulman te xasante amul. Mhm. Isa mosul xa xasu ci que. moo jiitu Mohamed. ma tax la mooy missionnaire yi ramassé ko yëpp saa ni ko waaw missionnaire tubaab ay tubaab la mhm. mu ñëw di saaga Mohamed te xamuñu ne nag ma ci biir du ma nangu ñu xas. Mhm. ma wax li ma wax. le lendemain ñi doon wax loolu jëm ji loolu le <laughs> ça dit waaw parce que ma part à en tant que séeréer mooy ma gisee ku mel ni Demba Seck bàyyi ma ma mag bàyyi Demba Seck Ousmane Seck ma ma waaye amul moyen boo xam ne Demba dina mun a demee à Abidjan maa ñëw jox Demba lépp pour aller à dem en pays arabe jàng alxuraan boobu moo waaw. bu ñëpp si mu nekk pourtant bàyyam labe moo ko def waaw waa rek nee ban façon labe la ma ne labe pire. waaw <laughs> bu ma gisee koo xam ne leneen la ko yàlla may ci suba côté ma ne ko waaw c'est le cas de ma sekk. Mm-hmm. Oustaz Ndour bu doon man du ñu dem Makka. Mm-hmm. te li ma leen defal c'est normal. Mm-hmm. bu ko deful kon ñoruma suma famille lañu. yàlla def leen musulman. diine yàllaa leen moom di leen may ku ko neex mhm. bu kii waree sanca diine diine dina ko sanca mhm. am nañ ko jiitoon nii na ko yàlla bëgg daal bul kenn jël place yu yàlla nii mhm. na ko jiite daal dëgg la eh, bu kenn jël place yàlla am na solo euh, sëñ léegi li abbé wax dégg ko moom toujours mi ngi jëm ci li nga xamante ne dafay dëgëral relation yi ñaari diine yi léegi mu am benn polémique boo xam ne jamono yi à chaque année sax chaque année lay wax dafay ñëw bu ñu tolloo ci nowel musulman yi dinañ ko feete duñ ko feete li lan moo tax ñu euh, ñuy feete 24 31 mu bëri polémique yi ci am bëri ay interprétation ñu bëgg nag nga nga nga jox ñu ci sa xalaat incha allah après itam abet nañu wax ci seen question boobu aussi. wax ma man euh, xëy na man ni may waxee tout le temps nag man comme li may wax sànq ci ginnaaw rek maanaam yontu yàlla Isa yontu yàlla Moussa yontu yàlla Muhammad man barrières yi ñu teg seen diggante bokkut ak li ma gis ci alxuraan. Hmm. maam yàlla tegul benn barrière seen diggante. Hmm. ba mel ni kii dafa ñëw créer une communauté keneen ki ñëw créer une communauté keneen ki ñëw créer une communauté. Hmm. suñ doon wax fekkee la yàlla jàngale ca lañ yemoon li muy nekk rek mooy la communauté. waaw xëy benn flambeau lañ yor di ko paasante. maanaam yàlla noonu la jàngalee moom ci alxuraan. saa bu dire que nekkul ñoo xam comme ni ma ko waxee sànq ci commencement bi. du ñu woon ay concurrent nekku ñoon tamit ay ri c'est ça c'est ça mm-hmm. te tamit du ñu ay rivaux aussi mm-hmm. xam nga ni souvent dañuy dugal ak wujje fu wujje warta am mm-hmm. dugal maanaam jafe-jafe fu jafe-jafe warta am damay wax ne li yàlla di jàngaleel boppam su fekkoon ne nit ñi ci lañ yem problème du mës a am entre nit ñi ko problème du am coow yëpp li koy jur rek mooy nit ñi ciy dugal seen loxo waaye suñu yemee fi yàlla yem moom dalay wax lim lay wax lim lay sant lim santoon yonent bi mooy mu fàttali ku gëm moom la ku gëmul moom la mais ñëwul di forcer nit ñi wala di leen defloo laa ikraaha fi diin léegi nag su fekkoon ne ci loolu la jëm konoon konoon su boobaa problème du am léegi nag comme li ngay wax ci affaire feet yi même loolu tamit man même position laa ci am damay wax ne maam ñi nga xam ne ñoo ciy wax parce que may gis fan yi ñu bari ñu ngi may yónnee sax ay wax yoo xam ne nit ñi ñoo ngi ko ciy wax euh, damay wax ne leen koo gis mu bëgg koo wax indi ko ci cadre diine li muy njëkk a def mooy da koy diineel ba pare ça veut dire nit ki day ñëw ne waaw jullit maanaam pour mu mën a feetu ci diine faaw dafa war a nekk loo xam ne yàlla moo ko digal may leen li li ngeen waroon njëkk a posé wu question mooy ñi nga xam ne dañuy feetu wala par exemple dañuy gis nañ ne jour bi jour xumbeel la ñu ànd ca da nga leen waroon a laaj yéen lan ngeen di def yéen da ngeen di feete juddug Iisaa wala yéen da ngeen a gis ne lii feet la nii rek yéen ngeen ànd ci parce que tamit nit soo ñëwee ne diine pour nit nangam damaa ne est-ce que nit ki la muy def diine moo tax ma di ko def da wax ne nit ki lépp lu muy def su ko tuddee diine dafa war ñu laaj ko delluwaayam ca loola waaye su ko tuddee wut diine nag amul loo koy laajee delluwaay. ndax damay wax na yàlla suy wax ci alxuraan di suy wax ne ci surat 42 verset 21 di wax ne am lahum shurakaau sharaau lahum min ad diini maanaam yazan bihillah wala boog ñoom dañoo am ñu ñuy bokkaale ñoo xam ne dañuy yoonal ci diine loo xam ne yàlla joxewu ci ndigal mais day fekk nit ki loolu mu jàppee ko diine mais nit ki loo jàppeewul diine lu ñu mën a ñëw naan la waroo koo def dafa xaraam ci naka la xaraamee dégg naa sax ñoo xam ne dañuy xóotal dañuy ñëw naan nit ki sax soo ne ko yow joyeux Noël yaa ngi koy ni ñu koy waxee maanaam yaa ngi koy wax ne ko feete gi ngay feete ka nga xam ne dañuy wax ne moom doomu yàlla la maa ngi la ciy ndokkeel may waaw est-ce que nit ki moo wax loolu wala ndax may leen léegi su fekkoon nit ki dala wax ne moom loolu lay feete wala boog gis na ne tey ndax soo xoolee Noël léegi moom moo ma koy gën a xam Noël léegi soo demee presque partout dans le monde maanaam léegi c'est une fête commerciale da ngay gis ñoo xam ne par exemple gëmuñ sax diine soo demee tubaab da ngay gis ay yoo xam ne dañ koy féete. c'est ça. l'Europe a perdu sa foi fi indi waaye mu mu yéene nag. c'est ça quoi c'est ça. ne ay athées lañ mais dañ koy que c'est une fête commerciale. fii tamit da nga fiy ñëw feet la boo xam ne xëy na nit ñi dinañ def ay décoration dina rafet dina nàngam nit koo xam ne day bëgg a yaatal ci njabootam mu dem jënd lu muy jënd ci marché ba ñëw togg togg yu neex jox njabootam léegi kooku soo ko waxoon ne ko yow léegi lan ngay feete da ngay feete ne tey nàngam gi ci la xew wala naa danaa la déedéet man damaa bëgg a def lii rek def ko moo tax damay wax loolu souvent damay wax ne gars yi pour ñu mën ci wax yóbbu ko ci cadre diine faaw kay wax moo koy diineel ba pare maam moom a lekk a moomale kay def loo xam ne moom waxu ko ci boppam te loolu tamit soo xoolee soo gisee soo soo xoolee loolu problème bu mag la ndax dama leen wax na leen dafa am dafa mu ku ma déglu fan yi wax ci benn wax bu xoromu maa ngi leen lii rek day wane ay problème yoo xam ne souvent ñàkk xam lay dugal su ma ñëwee ne nit par exemple su ma la waxee ne la par exemple joyeux nowel parce que gëmoo ko kee moo ko gëm yow da nga koy wax xëy na waaye waxuma sax loolu waxuma sax wax ji waaye suñu léegi tey Noël la yow nit ki dem jënd ay jëndam ñëw togg nga ne léegi moom lii mu def lee lay feete yow yaa wax ne loolu lay feete pour rek léegi mën koo dugal ci cadre diine ma na ko léegi soo yemee ci su ma ñëwee na la léegi joyeux Noël nga ne léegi wax boobu nga wax day mel ni kon yaa ngi koy ndokkeel ci bis bi nga xam ne ci lay feete dañoo wax ne doomu yàlla ci la judd ñu wax xeetu wax boobu may leen ma faaw ngeen dellu ci histoire gëstu may leen déjà feet yi dafa am ay cosaan yoo xam ne soo delloo ca cosaan ca téere cosaane sax doo ko fekk c'est des choses yoo xam ne dañ koy instituer après may leen ma wax leen su ma xëyee ne la bon lundi wala may la bon samedi isa xam nañ li muy firi isa xam nañ baatu samedi fan la jógee isa xam nañ baatu lundi fan la jógee baatu mardi fan la jógee baatu mercredi jeudi vendredi fan la jógee parce que ay divinité la woon yoo xam ne par exemple soo demee ci romains yi dañoo amoon seen divinité comme lu mel ni comme li ñuy tuddee planètes yi ay comme li ñuy wax ay Mars Mercure Jupiter Vénus Saturne foofu la jógee ça veut que est-ce que léegi su ma la waxee bon samedi wala ma la pare euh, non man yooyu dama koy wax depuis toujours man mm-hmm. man damay wax ne ñëpp nañ dem gëstu ji su fekkee ci cadre christianisme dama naan leen dem leen ngeen gëstu li ñuy wax le premier concile de Nicée xam ne mu ngi amoon à 325 ngeen xool la ca xewoon ak la mu jur par la suite ci ay dogme loolu dama koy wax souvent yooyu yëpp dama koy wax ça veut que su dee su dee jour yii wax naa ci depuis 2019 maa ngi la en réalité xam ah nga sànq bi ñuy commencé yaa ngi wax loolu comme par exemple suñu waxee at bu bees bi ñu ne non non parce que ñun am nañ suñu at maa ngi leen def leen ndànk loolu ngeen tuddee seeni at bien après yonent bi lañ ko institué. Mm-hmm. Mm-hmm. maa ngi leen maanaam faaw ngeen xam ne. ñu jiitu ñi topp ci ñoom dafa am lu ñu royee ci ñu jiitu ña toppaat ca ñoom am lu ñu royee ñoom it ci ña leen jiitu parce que may wax ne bëri na lu ñuy def di ko tuddee diine te ñoo ngi ko inspiré woo ci judéo chrétien yi mais ay mbir la yoo xam ne comme ni moom li jox fex ba fii Sénégal ni mu mel maanaam nit ñi mën nañ di wax te duñ gëstu dañuy wax te duñ gëstu te pourtant suñu gëstu woon bëri na loo xam ne ñoo ngi koy joxe joxeñee ay nit dinañ ko joxe joxeñee seeni bopp ndax man loolu souvent damay faral di ko wane te comme li nga xam ne moom la ñu wax noonu sa veut dire que nit ki comme suñu waxee fin d'année damay wax xam ne moom ak li ñuy wax ci Noël la même chose fii Sénégal soo ñëwee ne nit par exemple 31 décembre est-ce yow da ngay feete Saint-Sylvestre ngay feete wala looy def mais dañ naan la mais lii fin d'année la rek dañoo jugee ci at benn at war a dem ci beneen at. ñoom defuñ seen xel ne dañuy feete benn saint ci boo xam dafa tudd saint Sylvestre. Mhm. defuñ loolu seen xel. Mhm. ça veut dire que nit ki pour mu mën la ci juger day ñëw moomale la loo xam ne yow waxoo ko ba pare soog laa mën a juger. Mhm. te su fekkoon ne nag léegi nit ki balaa nga koo wax na ko yow li ngay def nangam wala nangam. da nga koy laaj ba pare yow li ngay def lan moo tax nga di ko def. su la waxee ne nag lii moo tax ma di ko def fekkee ne moom da koo diineel nga ne ko ah yàlla kat moom lii la wax ci nangam mais su fekkee diineelu ko. yow nga bëgg ko àtte ci diine. waaw yaa ngi ci as. la dëgg am na solo. Euh, Abbé dégg nga li sëñ am na solo. mu ba ñu ci fecc la ñuy lan nga ciy wax. waaw. lii euh, suñu jamaano ñun. Mm-hmm. dañu bari chance lool. nga am ñu mel ni ñii ak man ak Oustaz Ndour mm-hmm. ñoo xam ne suma diine mokkal naa ko waaye yàlla may na ma gëstu diine jàmbur bi xam ne diine yépp yëpp yéemuñu ci suma diine mm-hmm. parce souvent ca jamono yi nga foog kenn foog ne bu dul diinam li fi ñëw yëpp du ah. ba yàlla bindee ay nit ba tey xeet bu fi nekk yàlla tànn nañ ci ay nit ñoo xam ne dund nañu lu sell la muy ñëw ji ñëw ba yegg si ci ñun erreur bi nag mooy ñun rek ñoo am sellaay ak man ne ko déedéet séeréer baax na ci séeréer am na manjaago ak leneen leneen yeneen ak wolof ce qui fait bu ma xamee lii du ma je du ma dox di ji diine mbaaxit ah su ko poti yàlla may na ñëpp lu ko ñëpp mun a jaamoo boo déggee ak bouddhiste yi yàgg ak ñoom nga gis ñu sell la boo dëkkee ak musulman yi te gisoo ñu sell la nga boo demee ci christian tam baax ah, ah baaxuñu ñëpp am nañu waaye ci xeet bu ne xeet bu ne diine bu ne yàlla def na ci ay ñoo xam ne law la cet mm-hmm. ah, waaw waa jii li fi gën a bëgg xam naa ne moom a raw fuuf ci jub ci xam-xam ci siw feelu waa ji mm-hmm. mun na ko ba ñëw wax ma xalaat ma ne ko Jacques gis nga waa ji sa Oustaz Ndour bii du nit waaye du sa morom ma ne ko waaw nangu naa parce que gis naa ci moom loo xam ne ba ñu ma ko def dañu ko doon def mais awma ma ko. Mhm. te yàlla may na ko ko. Mhm. suñu jàll Idda bokk na ci la Sénégal daal ci loolu lañ ko teg yàllaa ko may diineem la ca baax ak la ca du sa affaire waaye moom it na am xam-xam ne diine jàmbur itam du maa leen di defal théologie ah ah du du ma ah, ah. ñoom daal laa dekkal buñ ma jéemee ah ah ah oustaz nañ fi yem saak yaa wax li lii dialogue bi dugg ca <laughs> et cetera. am na solo mu am nag euh, beneen mbir moo xamante ni euh, jullit dañ ko naan jëfandikoo. waaw yi ñoom ñu koy jëfandikoo ba léegi. Mm-hmm. muy sàngara. waaw. Euh, parfois itam day indi ay jaxasoo. Mm-hmm. ñii ne dafa xaraam ñii ne xaraamul. Mm-hmm. sëñ Cheikh. sew sew boobu itam jar naa leeral. maanaam damay wax ne c'est des années maam ak ci ay 2017 damay wax ne en 2016 dama gisoon benn rapport bu ñu defoon euh, ci année 2016 yi xam ma ci ban anne sax ci année yu jiitu mm-hmm. ñu wax li nga xam ne moom la ñuy consommer. ci maam sàngara ci Sénégal ci benn at may leen waaw léegi yéen lii xam ngeen ne ñu ñuy tuddee chrétien yi consommé wuñ ko <laughs> xam ngeen ne wuñ ko ma ne leen en réalité c'est que diine fii Sénégal damay wax damay faral di wax loolu damay wax ne c'est que nit ñi il suffit que benn débat am kenn ku ci ne jug di wane ne man fii laa bokk mais su loolu weesoo naka la ñuy dunde naka la ñuy dunde c'est que foofu la affaire bi nekk damay wax ne ñun dañoo bëgg rek sangu lu tubaab dox faire l'autruche su yenn yi xewee ñooy dañuy faire l'autruche parce que damay wax ne maanaam lépp luñ fi joxoñ ne dafa bon wala ñu ne dafa xaraam soo fa demee ña ngi fay fekk yan tuur la ñuy tudd wala boog ju ëpp ca ña ngi fay fekk comme jox la grande majorité may leen léegi li ñu wax sàngara loolu nag beneen débat la ah, parce que man euh, parce que débat la boo xam ne man soulevé naa ko fii ay jamono leen wax ne gars yi dañuy wax ne sàngara dafa xaram ma ne leen euh, su fekkee ne alxuraan la ñuy wax yàlla dafa am ni muy waxee ma ne leen yàlla baatu sàngara ñëw na ci alxuraan su ngeen demee ci ma ne leen sax da ci d'ailleurs olof li muy wax sàngara foofu la ko jëlee ko sax ba olof day wax ñollu euh, sàngara ma ne leen yàlla li muy wax ci suratu naxli muy surat 16 di wax ne wa min thamarati naxiili wal anaabi tattaxizuuna minhu sakaran wa rizqan xasanan maa neen baatu sakaran boobu fa la olof jëlee fa la olof jële baatu sàngara may neen yàlla nag suy wax foofu dafa tudd loo xam ne dañ koy def la tamay tamay leen loolu li am solo mooy yàlla production lay wax loolu laay wax nit ñi quoi maa leen production ça veut dire que li nga xam ne soo ñëwee fii suñu yenn mbokk yi ni nga xam ne loolu la ñuy jëlee li ñuy wax sëng ci palmier yi ñoom it dañ daan jëlee sëng boobu ci seen palmier dakkee yi te yooyu te loolu alxuraan ci boppam moo ko saxal ma leen tamit ngeen dem ci alxuraan yàlla di wax ne yaa ayuha alladina amanu laa taqrabu salaata wa antum sukaara xatta taalamu maa taxawluun ba fa aaya ba muy surat 4 verset 43 et yéen ñi gëm bu leen jege julli te fekk ngeen màndi ba ba nga xam ne du ngeen xam lu ngeen di wax léegi nag ñu ne sàngara dafa xaraam may leen d'abord faw ngeen taxaw maanaam yàlla moom dafa am benn wax bu mu wax ci alquran boo xam ne mooy règle xaraam ci diine may leen maam xaraam ak dagan loolu domaine yàlla la te may leen yàlla dafa wax ne ci surat 6 euh, verset 119 lay wax ne waxad fassala lakum ma xarama aleykum ci biir maam faram-fàcceel nañu leen li ñu xaraamal ci yéen may leen yàlla lépp lu mu xaraamal da koy wax ba mu leer ñu ne léegi waaw léegi nag yàlla dafa wax ci baatu xamr may leen xamr moo gën a yaatu sàngara mm-hmm. may leen xamr moo di tubaab di wax psychotrope may leen psychotrope sàngara moo ngi ci biir xeetu drogue yaa ngi ci biir am na sax ay produits pharmaceutiques yu ñuy fajoo yoo xam ne ay psychotrope la may leen léegi su leen waxee dafa xaraam kon ça veut dire que lépp loo xam ne xamr la dafa xaraam par exemple comme li ñu wax soo demee ci produit pharmaceutique comme par exemple li ñuy wax comme codéine da gis ne yooyu maanaam maa da ngay gis loolu psychotrope la mais léegi par exemple su fekkee ne nit ki dafa feebar moo am ay douleur yu métti ñu bindal ko loo xam ne psychotrope la donte day atténuer douleur bi léegi ndax su boobaa kooku dañ koy wax ne ko loolu dafa xaraam may leen faaw ngeen dellu ci cosaanul baat yi may leen baatu xamr ak baatu maay faa ngeen dellu cosaanu baat yi may leen baatu xamr ak baatu ximaar bi nekk ci 24 31 wala yadrib na bi xumuri na ñoo bokk delluwaay xamr nag lu muy firi mooy loo xam ne day muur am xel tubaab moom lay wax psychotrope may leen sàngara ci biiram la bokk dorog yi ñu xam ak yi ñu xamagul sax su ñëwee day dugg ci biir ndax may leen loolu ay termes génériques la terme yoo xam ne lépp loo xam ne day def effet boobu su ñëwee da cay dugg ma ne nag yàlla suy wax ci alxuraan dafa wax ne yonent bi la ñëw ne dañ koo laaj mu ne ko yasalunaka anil xamr wal maysir mu ne xul fihima ismun kabirun wa manafiun linnaas wa ismuhuma akbaru min nafihima dafa wax yonent bi ne ko ñu ngi lay laaj ci xamr ak maysir wala maysir ñaari baat yëpp ñoo bokk yam nga xam ne ay produit génériques la ki kii nga xam ñu koy ay termes génériques la baat la yoo xam ne lépp loo xam ne dafa xeetoog loolu su ñëwee day dugg ci biir yàlla wax yonent bi ne ko waxal ne nekk na ci ñoom ñaar ay lor yu bari ak njëriñ ngir nit ñi dañ ma doon laaj moom ñun nag naka jekk yàlla njëriñ li mu ci tudd xawoon nañoo jaaxal may leen parce que fi mu toll nii xam xamra dafa gën a yaatu ki nga xam ne dafa feebar wala par exemple ci jamono bu njëkk ba nit daan nañ ko opérer daan utiliser comme anesthésiant li ñuy wax la morphine maa leen morphine xamra la psychotrope la maa leen léegi suñ koy utiliser ci médecine am na njëriñ wala amul njëriñ ñu ne ma am na njëriñ maa leen mu ngi noonu ki feebar am ay am ay métti yu tar ñu bindal ko garab boo xam ne psychotrope la mais day atténuer les douleurs kooku loolu amal na ko njëriñ wala am na ko njëriñ maa leen am na njëriñ mais yàlla dane waaye am na njëriñ daaxalu koo njëriñ. Mm-hmm. mu ne waaye nag lor yi ñoo ëpp njëriñ ñu ne ma waaye yàlla soo demee ci alxuraan dafa wax ne yaa ayyuhal ladina amanu mu nekk ci euh, surat 5 verset ci verset 90 91 mm-hmm. ñaari aaya yu toftaloo la gars yi dañuy ñëw rek jël benn bi lu si bëri mm-hmm. yàlla di wax ne yaa ayyuhal ladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaan fajtanibuuhu laallakum tuflixuun dañuy ñëw rek dóor boobu maa leen def nag yàlla da et yéen gëm li ñuy wax xam ak maysir ak ansaar ak azlam nga xam ne comme li ñuy wax xàmb yi ak li ñuy wax xeetu xoy yàlla mu ne loolu rijjis la maanaam lu bon la ci jëfu seytaan la mooy leen moytandiku leen ko ñu ne moytandiku leen ko boobu rek dafa doy maa leen déedéet daf leen ndànk yàlla du xaraamalee ci moytandiku leen ko maa leen ñu ne ma yàlla wax na ci alquran Euh, euh, euh, yàlla wax na ci alxuraan wajtani bu taaxuuta maanaam yàlla su waxee ne wajtani bu taaxuuta wax na ci biir alxuraan na waxat du umiru an yakfuru bihi am na foo xam ne nee dañ leen a digal ngeen weddi ko may su ma ñëwoon ne yaa ayuha alladina amanu tanibu kathiran min azanni inna baada zanni ismun may leen léegi su yàlla su waxee ne ay yéen ñi gëm ndiku leen barik njort ndax lenn ci njort yi bàkkaar la may leen léegi est-ce que da ngay ñëw ne bari njort dafa xaram eh, xam nga doo ko wax kenn du wax bari njort dafa xaraam may leen yàlla li mu wax dana moytandiku leen ko may leen faaw ngeen ràññee xaraamal ak li ñu la déconseillé ñaari wuute la waaw kay may dafa ay dafa ay nuance bi waxee ne fajtani buuhu laallakum tuflixuun mu ñëw teg ci ne innama yuridu shaytaanu may leen aaya boobu nag mooy solo si moom mooy leeral mbir mi innama yuridu shaytaan ci xamru boobu ak maysir boobu ak di gàllankoor ci fàttaliku yàlla ak ci julli mu nekkoon kon ndax du ngeen ko terewu may leen yàlla est-ce que day tere dara na ndax yéen du ngeen ko terewu yàlla suy tere day wax tere naa leen waaye ndax yéen du ngeen ko terewu may leen loolu dañ leen ko déconseillé am na njëriñ lor yaa ëpp ñu ne leen léegi yéen ndax du ngeen ko terewu may leen léegi nag nit ki su gëmee nag yàlla su la waxee lu mel nii lu mel noonu li war ci yow mooy nga terewu ko ma loolu mooy li waaye nag nit munoo ñëw fu yàlla waxul ne nangam dafa xaraam yow nga ñëw ne nangam dafa xaraam te yàlla waxul loolu man nag comme li may wax rek su ma wax ginnaaw man damay wax ne li am solo mooy nit ki lépp lu muy wax na ci yem fi ci yàlla yem parce que yàlla moo moom nit ñi moo moom diineem li mu jàngaleel boppam nit waru koo jéggi di waxal boppam leneen lu dul loolu am na mbàkk waaw man mii nga jàkkaarloo. Mhm. depuis 16 janvier 1957 ba tey ku ma wane naan nga Sangharama ay fenkat ka mhm. CHS on était à CHS à la Fandène. Mhm. la fête de Fandène. xumba daal. Euh, sëñ bi ñuy euh, euh, def si palmier ma naan si. vers euh, quatre heures et demie nag ñuy ñibbi Thiès. Mhm. il y avait sept à pied. Mhm. ma ànd ak set garçons yoo xam ne maa leen mag fuuf. Mhm. man ba ñu génnee village bi damay daw ba mu sori ma fekkee ba ñu ne ne bépp ci suuf <laughs> di ree di di di ju am na bu ma ña ña leen ma def ba ma demee ba ak si Thiès ma ne ko bonhomme de neige man. tu as tu as dans la bourse fii boo defee dof bi nga defale oto dina la rey de fii Thiès la ma bàyyi caaxaan ñu ñëw yëg si cours normal fekk élèves yëpp ñu nga table ak euh, directeur bi ma ñëw ne su ma moroom toog leen loolu ma toog ma taxaw de jékki-jékki daal ma def comme ku ko bugg a fecc arrêté waaye yëpp gis nañ ba <laughs> ma dem toog réeru ma à la fin du repas le directeur, les taa vont aller à mon bureau. Je dis à mes chers compagnons, mettez-vous derrière. C'est pas vous l'imbécile, c'est moi. Mhm. Carrément. Manière me comprendre, voilà. T'es sur le voyage bon à Khalei, parce que Marine Macfou, fu fais tout, c'est marcher la fandène. C'est à Gouma. Jadoul. Khalei deviendra man miila Ensuite, les nañu naan y na Karna, na mun nga ma euh, renvoyer ma jël fa bagage ñi ñu palmarin waaye ñi bokkuñ ci keroog la bàyyi alcool bi tey nii di 16 janvier sa kabe tey ah non non la mhm. caaxaan caaxaan bi baaxul du ma ko du ma ko ñaareel mais à toute chose malheureux bon bu loolu amul woon kon maa ngi naan ba tey mhm. waaye 16 janvier 57 mhm. maa déconné ci xale yi maa leen mag fuuf parce que c'est les tard à l'école ma ne lii man en tant que séeréer du retrouver <laughs> dëgg la am na solo xam naa ñu ngi ci euh, dernière question yi euh, Mbacké Cheikh Ahmed dégg nga li li abbé wax kon dafay fekk si li nga wax ni bëri na yu bëri yoo xam ni am na waaye cosaan la ci nit ñi la mm-hmm. waaye gi ci ñu yàlla yónni woon ñu dem ci dernière question bi muy euh, li nga xamante ni mooy li nga wax sànq mooy laxmal xinziir euh, di yàpp mbaam yaa naa des chrétiens yoo xam ne dañ koy lekk yaa naa lekk loolu aussi bëggoon bëggoon nañ ci ñëw parce que da nga wax sànq wax ju am solo muy am na loo xamante ni euh, yonent yàlla Isa di Jésus euh, bi ko yàlla yónnee sàmmonte na ak li nga xamante ni mooy mission ba mu mat waaye nag ca gannaaw la cay xew moom du ko fekk loolu ah, parce que soo xoolee yàlla dafa am lu mu wax dafa wax yonent bi mu nekk lu am solo ne ko wama arsalna min xablika min rasulin wala nabiin illa ida tamanna alxa shaytaanu fi umniyatihi mhm. maanaam benn yonent mucc ci benn kenn ku ñu yónni mucc ci benn prophète mucc ci yàlla dafa wax yonent bi ne ko yebaluñ ci lu la jiitu benn nabi wala benn rasul loolu na bi mu ñëwee wax la muy wax ba noppi seytaane dugal na ci ay mbiram loolu nag muy yonentu yàlla Moussa yonentu yàlla Isa ba ci yonentu yàlla Muhammad ñoom ñëpp kenn muccul ci loolu da ñëw wax li ngay wax ba noppi bàyyi koo fi ginnaaw gi nit ñi nag ñëw jël seeni mbir dugal ay di dugal dugal yooyu nag mooy li nga wax saar ci ginnaaw dugal yooyu mooy diisal sax diine. Mm-hmm. diine su fekkee li yàlla jàngale rek. day nekk lu oyof. Mm-hmm. li ci nit ñi di dugal nag moo koy diisal. Mm-hmm. mooy jurit problème. entre les gens entre les gens. absolument. li nit ñi di dugal mooy diisal diine. mooy jurit problème entre les gens. parce que damay wax ne soo damay wax ne yàlla lépp lu muy digg ak nite lay dolli ci nit. waaw lépp lu muy tere ak nite lay wàññi ci nit. jërëjëf. te loolu dafa nekk loo xam ne ma tax xam na xam nga li ngay wax li ngay wax maanaam comme ci laxmal xinziir mhm. soo demee ci alquran c'est clair ah mhm. yàlla wax na xurrimat alaykum al maytatu wa damu wa laxmul xinziir mhm. alquran moom yàlla da ko tere mu nekk loo xam lu leer la même soo demee sax ci comme li ñuy wax ci comme comme yi ma ancien testament da ngay gis ni yooyu moom dañ ko fa tere complètement mais comme li ñuy wax souvent bëri na yoo xam ne day am maanaam souvent ci ginnaaw yonent yi lay am. waaw yooyu nag mooy tax ba da ngay gis ñoo xam ne par exemple dañuy tudd ay chrétien. Mhm. dañuy wax ne ñoom du ñu jëfandikoo comme sàngara bi nga wax. Mhm. dañuy wax ne ñoom du ñu jëfandikoo comme li ñuy wax maanaam de porc. Mhm. comme li nga xam ne c'est ça comme la viande de koy jëfandikoo. mais gis da ngay gis ñoo xam ne ñoom dañ koy jëfandikoo. mais nag souvent problème yi fi muy nekk nag mooy ginnaaw bi ñoo ñu bàyyi ko. jërëjëf Cheikh Ahmed jërëjëf Abbé. mu mel ni. waxtu wi dab nañu. Mhm. lan ngeen di tàggoo rapidement. waaw ah, man de xam naa su may tàggu mooy sant la. ci dañu amaat nag beneen jotaay bu gën a yaatu ah. parce que man doyul ba tax xam naa ne téléspectateur doyul. c'est ci war a dafa bëri. lalaguñ ci dara. Mhm. maanaam sant la ci jotaay bi. Euh, loo xam ne lu ma neex la aussi parce que maa ngi la koy maa ngi ko koy wax sànq. dama ne ko Abbé Jacques man bi may gën a nekk xale. man euh, ak sama yaay dañ ko daan faral di seetaan waaw euh, xam sama yaay moom dafa nekkoon euh, benn jamono ci ci dëkk ñoo min kay waaw léegi nag ba nit dafa nekkoon xale xawoon nekk ku bëgg xam-xam ma gisoon tamit ouverture boobu aussi ci moom ça veut dire mu nekk nit koo xam ne mën naa toog ku ne te loolu tamit c'est très important te comme mooy comme li ñuy wax ma am ma culture boobu dañ xaw a ñàkk te culture bu am solo ça veut dire mën a toog ak ku ne wax ci xam-xam nit ñi kenn ku ci ne mën ci jëriñu kenn ku ci ne xam lu mu ciy jël te loolu c'est très important te wax dëgg yàlla macha allah ma waxtaan wi am na solo jotaay bi am na solo te dina tax aussi surtout maanaam nit ñi di def effort di dem di gëstul seen bopp xam damay wax ne yàlla dafa am benn wax bu mu wax ci alquran te ko te képp ku gëm dafa war a nekk sa doxalin yàlla dafa wax ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masula dafa wax ne nit ki warul topp loo xam ne amu ci xam-xam warul topp lu amul xam-xam waaw ndax mu ne dégg gi ak gis gi ak xel mi loolu yëpp dañ la koy laaj ëllëg ça veut dire que loo xam ne yàlla da koy laaj ëllëg kon nit ki même su ay nit di ñëwee di wax pour mel nii dañ lay xëcc wala boog di créer ay affaire yow demal nga gëstu loolu lan moo ci aju nga xool ndax soo ko gëstoo ndax dina laaj may wuute wala may xëccoo wala may xuloo wala kenn ku ci ne di xëcc di jëmale ci booram mel ni day imposer keneen ki ngëm-ngëmam. yooyu yëpp c'est des problèmes. dëgg la macha allah euh, ma gërëm leen. ci chance may. ma ñëw euh, fii loo xam ne dina ma dolli. ma gën a ubbeeku. may ma ma respecté ma moromu jullit. nit ak diineem. ak soxnam bu ma leen mënuloo waxal lu baax ma ne fàtt. jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Ahmadou Mbacké ñu ngi lay sant bu baax. ci sa disponibilité biñ la soxlaa xat nga lool waaye nangul ñëw teew ak ñun bokk ak ñun jotaay bi. di sant bu baax Abbé Jacques Seck moom itam ci taxawaay bi bu baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla tawféq di sant itam koo xamante ni mi ngi bàyyi xel émission bu baax a baax di monsieur Dame Fall ñu ngi koy ziar bu baax. Mouhamad Ndour moo nekk ci régie bi euh, Papis Mbaye ci production bi Adama ci li nga xam ne mooy programme bi hada wa billahi tawfiq wastaghfirullah li wa lakum wa li saari almuslimin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh